Bienvenue sur Salam Vision. Serigne Saliou Alaaji Serigne Damlo waaw boo ci wax rek alali sëñ Saliou Dieng gën sax. macha allah rabi maa ngi lay ziare bu baax a baax. yàlla fayal nangu ñu ngi leen di euh, na ngeen def ak coono yi. ñu ne sant. Ah, yaa ngi en direct ci plateau Salam Vision ci jotaay bi nga xam ne moom lañ def jotaayu xam-xam waaye bii dañ ko def jotaayu coupe du monde. waaw. Euh, wax dëgg yàlla gannaaw ndam lu rëy li nga xamante ni am ngeen ko ca euh, tooli Serigne Saliou yi nga xam ne demoon ngeen ca. keroog bañ la wooyee fekk la foofa ndax dafa fekk premier match bi daal la faa fekkoon ñaareel bi tamit fekk la fa waaye premier bi am loo ci waxoon moo am nu mu demee ñaareel bi biñ la woowee nga xamal ñu Sénégal dina dóor te man fas naa yéene bu pare bu ma jógee xel kom bu qualifié danaa dem Qatar incha allahu rabbi ñu bëggoon xam tey ji match bi nga xam ne moom lañu dese pour Sénégal wala qualifié yow ban gis-gis nga ci am ak ban jàngat a jox askanu te di la bàyyi xel ne. waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu mboolem ñu nekk ci plateau Salam Vision. Mhm. ak mboolem kuy déglu sunu kàddu fu mu mën di nekk. Mhm. Euh, ba léegi ñuy xel comme jógee gun fi waaye nag li mu mën a wax rek ci tënk ko rek. Mhm. ginnaaw ba nekkee ci xaw a jàpp tuuti mooy max bii ñu dëgmal. di suñu diggante ak ak waa na ci àdduna bépp ak sénégalais yi. daw jëndi moyens sénégalais yi. Hmm. loolu laa am lu may digal ci sénégalais yi ñu jëndi moyens sénégalais. Hmm. fas yéene supporté. nga xam ne nag képp ku doon jaaykat. ci hmm. kàttanu suñu borom da nga bëgg. max bi ñu dégg na incha allah bi soobee yàlla. Sénégal da koy gagné dañuy qualifié incha allah bi bu neexee yàlla. loolu nag waxoon naa leen ko. avant mm-hmm. coupe du monde. Mm-hmm. waxoon naa ko def ko ci biir sit bu naan ABS Pro. ku ci dugg gis ko nee naa la woon dañuy génn suñu pool. Mm-hmm. bëri na yoo xam ne wax naa ko ci yéen ñii seen i site ak Kiki TV. ndax nee naa leen mel na man rek ci Serigne Maay mu fi taxaw wax avant coupe d'Afrique. wax score bu ne match bu ne ak Sénégal di di dóor. mi ngi Kiki TV mi ngi seen biir YouTube ku dem tàpp ci YouTube bi da nga loolu yëpp beneen Serigne bu ko def ci àdduna te loolu dama koy jéggulu suñu borom bi. muy génn nga ma teeloon a génn wax score yi sax match ni mu demee loolu dama koy jéggulu yàlla. la tax ma koy jégal suñu boroom maa ko xam waaye max bii di ñëw nii. adduna bépp may dégg dama seetaan man Serigne Dame Lo maa kuy sénégalais. Mhm. jëndil drapeau ak moyen danay qualifié incha allah bu soobee yàlla. incha allah max yu yëpp dugal nañu. Mhm. waaye bii nag danañ ci def suñu kéem lay kàttan ba kenn duñu dugal. Equateur duñu dugal incha allah bu soobee yàlla te danañ gañe max bi bu neexee yàlla. danañ gañe sans sans encaisser bi. incha allah rabbi bu soobee yàlla. Sénégal dana dana gañe te du encaissé bii. loolu mooy suñu yéene bu neexee yàlla. loolu de dal na xel te wax dëgg yàlla sedd na xol te Sénégalais yëpp ne bu ñu la déggee seen xol dana sedd ñoom it macha allah rabbi kon yow bu ma bu ma la déggee baax a baax sëñ Dame kon yow fi ne boo jógee xel comme fi mu ne Équateur nga waxoon ne bu Sénégal génne ci deuxième tour bi da ngay dem Eco fa dem Qatar fi mu ne kon yow yaa nga loolu ba léegi. incha allah waaw kilifa gi moom bu soobee yàlla ak dogalam la yàlla may bu ko nangu. Mhm. Sénégal yëpp ak àdduna fu leen neex nañ ko partage. Mhm. xam nga mën naa wax sax escore match ba xam nga tax waxuma ko. Mhm. muy sëriñ su bare bëri man la ñuy déglu. te heure bu ma waxee escore ñu génn wax ci escore bu mel noonu. wala su ma nee Sénégal day gagné ñu doog a def site di gagné te man nee naa du ma benn sit wala benn tele wala benn euh, internet di ko fay xaalis ngir di wax ngir dara. ay Sénégalais leen fu sëriñ nekk te man dara defal ñaan te bàyyi wax ji. bàyyi bureau bi bàyyi tooy yu bëri jëru ko.

waaw ku man la ngay man rek foo nekk ci àdduna ku la soxla dem fekk la fa. dëgg la de am na ñu nekk ci réew mi di Sénégal man na leneen lu dul football mardins am na ñoom ne football dong fu mu laal mu sedd ku ne yomal la nga man ku yàlla dénk lépp nag nga xam ne suñu borom dénk na la lépp waaye li ma gën a métti mooy mhm. euh, bu yuy jàllee ba baramaa dem Qatar danaa def interview voo yenn site yu bari yi ñu ñëw danaa def interview yoo xam ne ñuy woote balaa yàgg incha allah. incha allahu rabbi kon daal mu mel ni kon na sénégalais xaar ni yow boo jógee xel ko bi allahu rabbi tombeeg Sénégal qualifié moom fi mu toll def conférence de presse ba noppi door a dem Qatar. incha allah rabbi bu soobee yàlla. Sénégal day qualifié. ah alhamdulilah yàlla mayoon bu ko nangu incha allahu rabbi. Mhm. te nag mboolem ñi jël numéro bi. Mhm. danañ gis ma istati sarax bi. Mhm. du ma ko waxagul. dëgg la danañ xool sarax bi may wax ak score bi Sénégal di dóor ndax boo waxee sarax bi jamono jii ñi nañ ci Sénégal te bon te mën a yàq. Mhm. wala ñu bëgg a toroxal nit. Mhm. day tax son jëral leen ñu détourné wala def leneen. ndax am na ñu fi nekk di yàq am na ñu ne feneen di yàq. loolu moom du fi jeex moom du ma ko wax anti nii mais bu nii suba la incha allah mboolem ku jël numéro bi. soxla ma ko mo woo ngir ñaan la wala ngir dara doon Sénégalais. ba nga gis ñu istati ko nga partagé ko fépp fu mu mën di doon ci àdduna waaw macha allah loolu am na solo wax dëgg yàlla ndax dañ ko waxee am na solo ndax ñëpp dafa bëri ay ñoo xam ne fi ne ñëpp ndamu Sénégal lañ bëgg waaye daf ci bëri ñoo xam ne ci suuf lañ nekk di màtt ci suuf ngir yàq rek fi ne moo lañ ci jub moom lañ ci jublu te ñooñu itam dama jàpp ne fi ne yel na sax nag fi ne yéen borom xam-xam yi ngeen jóg sax ni am nu ngeen tàmbalee jëflanteeg ñoom parce que tam euh, li ngay wax saa su ne tolluwaay bi nga toll muy kenn ku ci na dem en tant que sénégalais def ngir Sénégal ndax sénégalais bi mu doon te loolu dafa war jul sénégalais yépp moom moo tax ma ne leen rek après bu yiy jàllee danaa def conférence de presse boo xam ne. Mhm. ñu baree bari di génn di wax. ñenn sëriñ si ma sarañ tere nag woo naa leen téléphone tere leen ñu bàyyi wax ji. Mhm. ñi nga xam ne nag moom bëgguma am ak ñoom accès. Mhm. du ma leen ko xam ne sama kàddu dana jote foofa. mais nag su demee te la ñu wax ñoom defuñu ko. danaa génn ci lu baree bari loo xam ne mboolem ni nit di ñaane. wala nga nekk ci loo xam ne da koy mbubboo muy ñaan te ñaan danaa ko décréter par benn def ko. Sénégal gis koo xam ne lii tappale la. jërëjëf loolu waaw ndax coow li fi mu nii dafa bari wax ji bëri sëriñ bi jaratul dara ci réew mi loo wax ñu ne sëriñ si te mbubbum sëriñ dañ koo fooy am na ñoom du ñu sëriñ ñaankat la dama leen a bëgg wax lan mooy sëriñ ak ñaankat ak xërëmkat ak jibarkat lan mooy différence bi mm-hmm. léegi ku jóg ne nangam ñu ne sëriñ boo mënee seet sax ñu ne sëriñ mm-hmm. waaw te sëriñ du seetkat bokkul ak yooyu wala yeneen léegi na ku am sa xam-xam baa dara ñaanal équipe bi mu gagné mhm. ajuma bi passé bi vidéo yi bari bin ma ko envoyé dama gis xale yi mel rek ci football nga xam ne war ngaa ñaan sam réew jàmm te loolu kilifa di doon te mën a ñaan ñaanal Sénégal am ndam xale yi nekk ci jàmm ak salaam réew mi nekk ci jàmm mu ëpp importance wax jeeg coow li wallaay wax nga dëgg hmm? saagante beeg yu kenn xamul xamul dëgg la de waaw nit ñi nag nan dellu ngi xel koom mhm. euh, te léegi dañu ne bëgg a wax daal mooy incha allah bu soobee yàlla Sénégal gépp nan ànd xel mu dal. Mhm. te xam ne danañ qualifié ci kàttanu suñu borom ak dogalam incha allahu rabbi. incha allahu allah bu neexee yàlla. allah bu soobee suñu borom. waaw jërëjëf loo ñu bàyyi la kon nga dellu ci pays rek wax dëgg yàlla sant nañ la gërëm la ñaanal la tam bu baax baax wax dëgg yàlla ndax ni ñu yombalee jokkoo gi wax dëgg yàlla bu ñu ko ñëpp yombalee woon léegi tey ñu tàqale tappalekat yeeg baax na jërë ngeen jëf jërëjëf Lo. Bienvenue sur Salam Vision.